dal ak jàmm ci seen rajo bi amul morom rajo Ratanga ñu ni làmmuñ buy dotom moo gën a metti sax fa kastalu waaw waaw sama gaañ saa yu wax ji bare gàgganteku dafay jafe dëgg la jëwkat ñëpp ko bañ waaye ki koy déglu itam waxe noppi li leer ba leer sax mooy ñi ñuy iñaanee dong la ñuy utal sikk xariti Ratanga ak feneen itam kon boog ñu nga ca mais yow looy def nii Korsa lu sa yoon rek yow xam nga bu baax ni amoo droit di laal affaire docteur Moulay. te lan moo la wóor ni du docteur Moulay ci boppam moo ma yebal fii. lu mat fanweer minute maa ngi woon ak docteur Moulay te man gisuma la. ah way kon yow léegi danga may contrôler. am na leneen lu may def. yow danga teg sa bopp foo yëgul Corsa. depuis ba mu ñëwee ci centre bi ba léegi nekk fi lu dul di yàq sama der lu bon lu ne rek mu jël ko teg ko sama kaw docteur. dama kaa fekk muy fouiller say bagage docteur. waa dama doon ranger dossier yi rek. Corsa samay këyit man saa su ne dama leen di ranger bu baax sax. dama la doon jéem a dimbali rek docteur loolu dong la. demal toppatoo ji d'abord sa malaat yi xaar eh, gëmal ni sa nekk fii ak man dina metti bàjjen waaw kañ yow mii laa doon seet si sax man de dama bëggoon ku dal sama xel pour ku ma xoolal suma marchandise yi gérer ma tamit xaalis boutique bi xam naa xam naa mhm. sama xel dem nag si ma daal ma ne woon xëy na ngi ne mu mën a jàppale ndax bu ma duggee si tontine bi ba léegi damaa bëri jafe-jafe sama njaay mi magaar waaw magaar bu dee du la yàqal dara comprendre naa Badiane mais. mais sama boutique jege na leen te sax ñu noo ko amal njëriñ bu baax su ñuy jàppale ma dina dalal xalam. Mhm. waaye Badiane loolu moom Maguette soxlawu ko te. Ah. moom maa ko toppatoo léppam. xam naa sax xalaat bu baax la de ah. mhm. bi mu bàyyee liggéey ci cyber ba léegi deful dara lu dul toog. baax na. baax na bopp ak yow moom amul lu may ragal <laughs> Badiane. jërëjëf Tulli ah, <laughs> eh, nga war a wax Tulli ba mu kontaan nii. chéri gërëmal Badiane ci liggéey bi mu lay jox. Mm-hmm. dama soxla ku ma jàppale si boutique bi su fekkee ne d'accord nga si. xam nga ni dinaa si d'accord dina ma neex lool ma liggéey ak yow. hey demal préparé wu da ànd ak bàjjen. léegi nii ci suba si. waaw bul nekk fii di yéexantu de bon man damay dem dama am client bu may xaar garage dama ko war a jaay benn oto te oto bi sax setagul. looy wax da jaay sa oto. waaw kay. xanaa suñu problème mu xaalis doyu la ngay indi beneen. problème xaalis ëppal nga de du noonu. tey ni ma def ni ma naqaree sama naqar ba léegi dañagul may wax nag mu dem def ma ko nag ci kanam docteur Moulay. comprendre naa la. yow sax nag danga ko war a mere. ndax Jean Paul nga bëgg a wax nii. waaw feer naa sax mais. loolu taxul ma yéene ko lu bon de. waxaguma fi waxu mbañal dama ni ñu fexe nuñ ko yemalee. bu dee mën naa la si jàppale xam nga ni man yow laa àndal. xenitu lii ñàkk pexe rek moo tax ngay def lii waaw mais bëgguma mu di la sonnal su demee ba xam lii mën na fi nekk di soppi doxalin ak yow man xam naa lu may def fii na sa xel dal yow tamit xamal ni nag teraange àdduna dëgg mooy xale yi. waaw waaw man dama xamul ni jigéen mënee sànni doomam. amoo benn droit di sikkal jigéen yooyu nag suñu abandonné seen doom c'est parce que dafa am lu war lu tax ñu def ko. jéemu ma leen sikkal. demal yaay yow rek lay xaar demal acca demal. peut être pour bàjjen. waaw dama koy jàppale tuuti rek dañu nekk ci ay jafe-jafe mag tulli. man de loolu jaaxaluma gisoo nu mu lay yàqee. fekkee waxu takkaay ñoo la fi indi woon su yóbboo na nga ñibbi sama xol neexul bu nekk fi di waxantu. dalal sa xel loolu indiwuma fii. lu wànq di dox noor. niroo mag ku feebar. dama ñëw commencé tey ji formation bi ngir nekk seen bàjjenu gox. ah kon yow lañ jox poste bi. Hmm? te tulli nangu na liggéey si fii. xamu si dara te xanaa doo ko ko wax jàppale ma. <laughs> yaa ngi nax sa bopp boo yaakaaree ne tulli du ko xam. man de aw mag yow benn problème mais man maa bëggul mës sa jege sa dara ndax yow dangaa mën a indi ay problème defal lu la neex ak sama jëkkër bi mën naa ko bañ a toppatoo mais bul ma mais yow loo ma teg damaa bëgg nga xool bu baax ni ngay waxee ak man sinon yow ak tulli yéen a koy digaale réew ba dof maga waaw foo jëm nag. dama sawarul ci lii ak fu muy mujjee dama waxoon Aïcha mu nekk ak yow wéttali la ba ma egg si. non sànq Korsa laa gis. waaw ñu dem léegi. non yaay yaakaar naa ni damay ñibbi. dama ni nga topp ma. man duma mën a liggéey fii Tuli dina ko xam loolu wóorul. <gasps> dama ni nga ñëw ànd ak man du ñoo ànd noo Aïcha. réunion bi ak euh, programme mu PF bi. déedéet. mooy PF. planification familiale mi ñuy wooyee PF benn programme la bi nga xam ni day wàññi njur gi. waa ndax lii moom ànd suñu aada suñu cosaan. man de xaw ma nan lañ def sax ba taxawal fi programme bu ni mel. te nag ma ni leen. Mhm. loolu yëpp du kenn ku dul ah, assistant. te mu baax nii rek moom daal dafa sawar rek. <laughs> yéen dangeen a defe ni dafa baax ci ginnaaw maskam yéen yëgu leen réunion bi alors Khady Woulo jaaxle di gis léegi ku ko bëgg dama koo taf yëngalagum rek euh, client bi la oto bi ñaar ñëpp moo ko mën te sax yow ñàkkuloo si tous client bi xam naa ko de wóor na ma ni def si bëggoon jaayu si jabaru jàmbur. ah bon. waaw ah dafa nekk ak jabaru jàmbur mooy salaud. loolu mooy li am de sama waay sama xel dafa dem sax ci docteur Moulay wóolu moo ko dara ak sama jabar man te moom mooy ko su dee gynéco yow xalaatal rek ni muy bëggee jigéen itam <laughs> yow il faut que ñu wax il faut ñu wax ok topp leen eh, eh. ñun ñëwuñu fi pour xool sa garage

damaa bëggoon jënd oto genre marque bi faw ma jaay sama oto bi. sëñ bi na def loo bëggoon noonu. mais man xaw ma lii mooy lan te sa man exactement oto bu mel nii laa doon wër. seen heure bëggatuma nga di ma laal. te bul ma toppatooti man. man itam de. mais lan moo xew fii man seen jàmm rekk ma fi indi. eh yow dégg nga bu baax kii lu mu la wax nii. benn machine pour dagg ticket waaw am na sax ay gars. ay blouse. moom soxla woon nañ ko torop wax dëgg la. bu baax sax. yaay. xaw ma lu xew ci planning familial bi mais am na lu ñu complot. lan yow lan nga may wax ni loolu de moo am yaay. assistant fàtte naa la sax présenté Magaar moom la ñu bëgg a jël def ko bàjjenu goxu centre bi. yaay assistant wax na dëgg de xaw ma lu tax patiente yi dikkali ci moom nii. Magaar ñu gisewaat ci kanam. d'accord dama war a wax ak xale yi. mani tamit dégg naa wax yooyu te loolu du lu ñu war a sàgganee muy wéy nag moo taxoon ma ni ndax jarul sax ñu àjjeen di réunion yi. suñu defee loolu woone suñu néew doole foog ñu def réunion bi. baax na wax nga dëgg mais nag nañu def attention. Kosa ma ni fii dafa am benn jigéen buy niroog magaar ci centre bi. fu ne ngay gis sa jabar sa janneer gi nga nekkee nga war a bàyyi. baax na boog ñu wax ci li am solo mu jeex. li ma gën a bañ mooy ki may chantage tumbi. Eh, yow da ngaa amul di ma teg fitna man de tekkil teg fii. am. jox ma foofu cigarette. Eh, parce que da ngay jënd cigarette te baaxul nga may sewal nii oh. déet sax de dama la bëggoon wax rek ni tey duma reerandoo ak yow kër gi. xam naa ay client sa oto bi. tey jii. fépp fu ma nekk xalaat naa ba tax na daal dama doon janeer ma gis ne ci buntu koñ yi ak sax ci buntu sant de sant bi rafetluwuma tey dara li patiente yi doon def assistant ah <laughs> yow nag léegi da ngay ruube non du loolu sax ay nit yuy liggéey dañu wax nekk benn surtout patiente yi chaque jour ñu sikkal ñu yow yaay ñu njëkk sikkal waaw mais réeréew mbir ne sama xaritu noonu sama noonu lay dooni yow encore ati bàyyi ma gisoo ne damaa yàkkamti ñibbi. dafa am lu ñuy war a wax. Mhm. téyel takkaay yow te bul wax dara tulli. kon ba nii pare nga ma bàyyee say takkaay yëpp nii. waaw. loolu yëpp ndax bëgg a liggéey si fii am na lu waral lii non góor a nekk ci gannaaw. <laughs> agsi nga soo jógee naan yaa ngi muccul ay nit alors yaa ngi bàyyi sa jëkkër muy bëgg a dee xiif ci biir kër gi. yow Lassana xam nga lan mooy sa vrai problème mooy toog rek defoo dara ci say journée. mais bul di fàtte kot sa waroo fàtte jamono bi ñuy door a sëy xam nga ni mel moo nii noo su ma dajee ñi ma xamoon tey duñ ma xàmmee. jëkkër ju om la ñuy gis ku jabaram faalewul boppam dong damay liggéey lu bari dëgg la waaye nag sama liggéey googu moo tax ba yéen ñii ci kër gi ngeen di won nag ah bon sant naa man sama lu ndaw li fi nekk di def lépp lu ma neex ngir def sama bànneex sinon kon dee naa yàgg na xolal na jàll ca xaj ak yow it sax nag Korsa nekk loo jabar ju baax benn yoon di gisuma sa njëriñ dara mënoon ngaa jafe nu góor waaye defoo ko suñu xaalis bi yëpp ngay jël di ko foowe même samay takkaay dem nañ si amatuma benn souvenir ci sama yaay. soxla bu jàmpalewoon woon rek déglul Korsa gis nga dama la gëmatul yow Korsa ak say jooy gëmuma la man. li dalul sama xel mooy pexe bi ñuy tëral ngir naxtu li baa dina wéy da nekk di ñafe ngir sa ëllëg ak looy teralee say doom liggéey bii moo lay dooleel éy bàjjen yaa ngi mel ni ku am doom bëggoon naa ko nag waa kay sànq lu tax nga doon raay morso piis bi bés wax nga ma am nga doom ju góor xam nga yow itam dina la yokk doole nga wóolu ci waxtaan comme tulli nee na du ñëw reer si tey profité waale si demaale si PF ba damay dellu waat ci lii di jumtukaayu contraception loolu mooy tax ngeen mucc ci ëmb boo leen sakkuwul oyof sër caga yu bon yi bu seen bopp fii du fi ëmb tamit <laughs> jumtukaay yi contraception yi moo ñuy jàppale si xeex bu ñu nekk nii ci ñii di yàq ëmb mais loolu sax ndax du leen yóbbee ñii dina mën foo ak ah, xam nga ko te xam ngeen tamit jigéen yii di yàq ëmb mën nañ faa jaare ñàkk seen bakkan tamit oh. ngeen baal ma li ngeen may may ba ma paree def sama waxtaan ngeen door a jël kaddu tamit dama dul noppi parce que waxu fi dara lu am njëriñ fii nii. Oh, loolu la xam dafa bokk ci benn seet. <laughs> waaw wuy leen ma wax ji na doy dama bëgg ngeen génn bii sal. waaw dama bëgg ngeen génn bii sal. génn leen fii. nañ dem <laughs> daf ko jarul sax. Oh, oh waa lii lan la sax. Mimi ça baax na. bëri di xuloo déglu leen déglu leen ba. man de lii yëpp naa ko Asita. nit neexul a waxtaanee même fii la. xoolal soxna si noppi leen jarul coow jarul leen ngeen noppi dal leen rek dal leen yéen ñëpp dal leen. dal leen dal leen da ngeen déglu. dama bëggoon tuuti ngeen ànd ak dal oh. yéen ànd leen ak seen sago jox leen ñi fi nekk cër ak ñi bàyyi seen lépp ngir organiser seen réunion PF yi yenn doxali yi duma ko nangu fii ci sama biir bërëb liggéey. xanaa tiituloo ci lii yow. xanaa tuuti rek. waa yow wax ma yow mi nga xam ni sa wax bariwul lan nga ci xalaat nag. tonti dag maa war a bàyyi ma génn ak xale bu góor soo bëggee ma tontu ci sa question yi yëpp. moo tax nag réunion bi dakkal naa ko ma bëgg nag yéen ñëpp ngeen génn ci biti. jaaraatal ci kanam Aïcha damay dem nii. dama la soxla rek une minute docteur. yow laay déglu. Euh, dama laa bëggoon a gërëm rek si li ma jël ma nekk si centre bi te di la xamal ni duma la mës a wax daal. ñu dem. waaw. Merci Aïcha.